vraiment affaire bi métti na lool c'est une chose déplorable parce que nekk ndaw am avenir sa sa yaakaar la nga toog si réew mi amoo liggéey nga xëy gis sa yaay ak sa ak sa papa nga war leen jox dara amoo loo leen jox xam nga loolu tamit day métti trop boo toogee amoo amoo loo war a def da ngay obligé euh, seet beneen yoon quoi te mooy yoon boo euh, jeunes yi faral di jël set ans yi mooy l'immigration irrégulière yi xam nga ne y a trop de risques soit mën nga yegg soit mën nga mën nga dee tamit loolu tamit futur gouvernement bu war a ñëw ne war na si jouer bu baax a baax a baax a baax sax parce que jeunesse mooy tabax réew jeunesse mooy tabax réew yow na boo sàgganee sa jeunesse ba ñu ba ñu sànq loolu tamit day indi indi euh, handicap quoi. man damay privilégier éducation parce que man je suis étudiant en licence euh, au département de géographie parce que boo xoolee depuis 2022 ba léegi am nañ bac mais ba léegi ñu ngi ñu ngi suñu L1 quoi xam nga loolu tamit euh, c'est c'est ngi def suñu L2 loolu tamit day day tax bëri découragé si études tamit. loolu tamit état bi bu ñu bu ñu si mënee jàpp dina baax trop ñu réglementé affaire de telle sorte que ñu réglementé université yi xamante ne étudiant bu fa dem oh, da nga oh, au futur da nga am liggéey quoi parce que da nga gis ku jàng ba doctorat tamit xam nga dem di sommet bi parce que loolu ko rakam bu gisee loolu da siy boo ko boo ko bëggee forcer dem université sax du du nangoo dem tamit. le Sénégal y a c'est-à-dire le Sénégal euh, a une dafa am ay potentialité yoo xamante ne très important tey boo xoolee. Sénégal lu mu si jeune pays d' boo koy xool ma kenn ëpp ko jeune donc potentiel bu ñu important la te boo xoolee euh, président yi léegi président bu fi nekkoon certes liggéey na il a tout fait parce que regarde tey assainissement boo xoolee Dakar ak ak bu njëkk ak tey c' pas la même chose mais am na lu ñu gën a soxla c' est à dire may jeunes yi potentiel ñu bañ a jël comme gaal yi xamal ñaata jeunes dañu arrêté mort si Sénégal actuellement surtout dans dans ce pays dafa dafa dafa catastrophique dafa dafa bëri te yaakaar naa suñu yaay ak suñu baay mérité wuñ lii may ñu ñu jàng ba heure bi comment dirais nga comme genre manger des jams yoo xamante ne après bu ñu amee seen rappel ci lañ dem songu gaal am na ñu soo xam ci lañ nañ maa ngi dëggante ñoom mais am na ñoo xamante ne yegguñ ah xam nga loolu métti tey bu ñu amoon benn assurance bu ñu amoon assurance boo xamante ne bu ñu bu leen leeree bu ñu jàngee ba pare bu ñu amee diplôme danañ danañ amee liggéey kenn du quitté kon say bourse bi bourse bi ngay am da nga koy jëm a investir ma wala illaa bu ñu demee ba mënuñ président buy ñëw leen lañ ko ñaan leen lañ ko ñaan actuellement na pensé aux jeunes parce que ici ku fi mën a falu jeunes yi ñoo lay fan parce que la majorité des sénégalais aujourd'hui ce sont les jeunes pays yaakaar naa ne man bu dee man bu dee dañoo bëgg a jàppale pays bi tellement tellement jeunes yi jàppale parce que boo xoolee tey gàlle boo dem chef de famille ba famille boo xoolee la majorité gàlle bi sax ay jeunes lay doon kon jeunes yooyu bu ñu jàppale mu ngi jàppal ak maire yi ak euh, ñëpp daal ak tonton yëpp juste man man yaakaar naa ne bu dee dañuy jàppale jeune kese la ñu war a du question jeune mais question primordiale jaat ban la jeune la jeune yi bu ñu jàppale rek parce que pa doo gis pa buy jël maire bi doo gis pa bi dem dem di jël si gaal bi déedéet ay jeune ngay gis dem bugg jël gaal bi dem def yenn donc président bu mënta ñëw idée principale bu mu war a def de focaliser def si yi bu defee loolu ñëpp am jàmm parce que man sama tey exemple tey su président bu ñëwee mu am avantage ma commande reste mu am développement man ma am liggéey kon du nekk du ñàkk def dara yaa ngi comprendre kon donc l' essentiel foofu la foofu la ko war a foofu la ko war a foofu la ko war a focaliser mu jàppale jeunes yi chômage bu wàññi chômage bu wàññeeku rek wallaahi Sénégal dina dem